seen taxawaay bu rafet bi jërë ngeen jëf waaleykum salaam nee na nee na sëñ Muntaxa dañoo buñaa nee na nañ dañoo bëgg na ñaan ci takkusaan eh, ji waaye nañ ko xoj xëccaat ba ba ba 6 heures ñu soog a ñaan waaw sëriñ Muntaxa takkusaan la waxoon waaye sëriñ am sa nee na nañ ko yóbbu juróom-benn waxtu nee na sëñ Muntaxa moo wax sax ne nañ ko yóbbu juróom-benn waxtu waaw waaw a ne jàngkat yëpp a ngi sant di la ñaanal waaw waa yéen ñëpp la ñaanal leen ko yéen jàngat xasida na ko ñëpp jàngal mu wér ci yàgg fi sëriñ Muntaxa wér yàgg fi ci barkeb xasida yi leen ñaan nungu leen ñaan fu nekk na nga ñaan sëriñ baa ngi ñaan sëriñ bi yàlla na fi yàgg te wér barke Seexul Xaddim jërëjëf Mbàkke na ñëpp toog ba sëñ bi génn nan toog ba sëriñ bi génn sëñ bi mboolem ahloo xasaay bi yëpp ngi fi waaw waaw bi nee ne ñun ñoo di jànkatam xaritam loolu nag sant bu baax a baax Mbàkke yàlla nga fi yàgg te wér na ñëpp toog ba sëñ bi génn nu àggale li des ci liggéey bi buñ jullee àggale li des ci liggéey bi mboolem jànketi xasaay yépp nag seen taxawaay gis nañ ko sant nañ ñëpp kenn ku ne li nga na def sa bopp rek garan defal kon nag sant nañ bokk yëpp nu julli rek àggale li des ci liggéey bi sëriñ bi tam wax na ne sëñ Muntaxa taxaanee na ñu dem ba 6 ci ngoon nee na nan buñaa def si ba 6 buñ jullee ba noppi àggaleel des ci liggéey bi léegi nag foo waay nekk jublul penk rek ñu waaj te julli foo waay nekk da ngay jublu penku ñu waaj lal siyaade gi fee am ku jiite rek ñu julli bu noppee dolli liggéey bi ba 6 heures am nañ tawfeex bu baax a baax jërë ngeen jëf sant nañ bokk yëpp ñi yëkkati seen kàddu ak ñi yëkkati ñi yëkkatiwul seen kàddu sant nañ ñëpp bàyyiwuñ kenn يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير ولا لين لسواي منكرا بما على دهر يدوم دبرا مها توجه المكاره ليا باقي الحباب ذكره وهو ليا أنا رديت ووعني ردي بلا مكاره ولا أمرادي رد لغيري جهدي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغيري جهدي لعينه يسوقك لخيرنا المؤمن أديتي من الإله والنبي كليتي صفت وسفت نبي توفيق أد قاد والإلهام قد بيالي مال وانبيام بدت لي اليوم برب أغيب أعاسني من خلو وخيب لا يتوجه لنحوي مطعب أني مع مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قصبت شكر لي ميسر عسيري ما اختار لي بلا مسير سي ابراهيم جي جërëjëf ما شاء الله kon nañ julli bismillah bismillah